baax mbokk yi tey terrain politique bi tey ni mu mel ay parti yoo xam ne waruñoo nekk ay parti ndax mënuñoo appliquer charia ak ay parti yoo xam ne ay marabu la te marabu warta def politique moo tax troisième élément bi mooy parti yi nga xamante ne ay parti athéiste lañu dañ leen di dissoudre parti marabu bu fi nekk dañ koy dissoudre moom itam ndax marabu du def politique day féewalee askan wi te bu féewalee askan wi bu boobaa safaan rek la ñuy gis marabu du def politique ndaxte dafa mel ni rek ab docteur buy opérer doomam walla avocat buy aar mbokkam waaw mel ni comme des fois yaay joo xam ni doomam dañ ko bàyyi du mën a ànd ak kenn ndax doomam lay yërëm loolu ci boppam mbokk yi moo tax du mën a àtte moo tax marabu du mën a gouverner ndaxte dafa am ay taalibe ak taalibe ñeneen te ay taalibe mënuñu kaa témoigner moom te mënu leen a témoigner beneen élément mooy Sénégal foog ñu def lu ñu tudd observatoire de la laïcité mooy institution boo xam ne dafay saytu képp koo xam ne dafa violer laïcité bi ñu tegalaat la ci yoon ndaxte lu garaaw la constitution bi moo ko digle nag bu kenn yaakaar ne li may wax fii sanction yi may wax fii mën naa ko créer constitution bi moo ko wax article numéro 4 de la constitution dafa wax képp koo xam ne da nga def parparloo yow constitution bi da lay daal képp koo xam ne da nga bàyyi parpala mu dugg ci dëkk bi conseil da lay daal dañ la war a punir mbon nag constitution bi war nañu dal ci kaw Macky Sall atte ko pour ma wax leen loolu gën leen ko firil Macky Sall porté naa ko plainte ñetti yoon porté naa ko plainte 2019 ci élection présidentielle 2019 porté naa ko plainte 2020 porté naa ko plainte 2021 ndax dafa violé suñu constitution mais xaw ma lu xew xaw ma ndax da cee da cee dëgg concomam wala ndax conseil constitutionnel mooy ci dëpp ak wante bu ñu nekk ci démocratie képp ku ñu tooñ da ngay dem foofu bu fekkee ne Ousmane Sonko par exemple ak benn nit ñoom ñaar ñoo jote ñu ne diw dañuy dindi malaanu kiraaya ci diir bu gàtt gàtt gàtt lan moo waral tey président de la république def loo xam ne moo gën a rëy lu nekk tooñeel boo xam ne moo gën a rëy ci àdduna bi yàlla ne def leen di mun a duma ko def ku def lu mel noonu nga porté ko plainte ndax li muy def day lor quinze millions d'habitants ak lu ko ëpp lay lor kooku kenn ko àtte xanaa dañu fàtte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax ne innama ahlaka alladina min qablikum annahum kaanu ida sariqa fihim sharifu tarakuh wa ida sariqa fihimu daifu aqaamu alayhi lhadd fa ayyama allahi law anna fatimata binta muhammadin sariqat taqataatu yadaha mu ne li alagoon ñi leen jiitu woon mooy bu ñu masaana def safaan bu bàyyi ko ci borom barke yi dañu leen di bàyyi wante ñi nga xamante ne ñooy baadoolo yi bu ñu defee safaan ñu appliqué loi ci ñoom keroog la wax ni su ma doom jii di Fatima bu defoon safaan sax ma appliqué ko ci moom bu sàccoon sax ma dagal loxoom si Omar Abdul Xataab yal na ko yàlla fay yow dafa am benn jigéen bu xamoon bi mu laata nekk xalifa mu ne soxna si dama la soxla bi mu ñëwee bi mu nekkee xalifa nag soxna si xam nga Omar dafa ñàkkoon caaxat soxna si ndeysaan dafa ëmboon mu tiit ndeysaan bi loolu tax doom ji juddu yuuxu génn àddina Omar dajale ay saxaaba yi ña mu àndaloon ne leen ah lii de laa bëgg ngeen seetal ma ci àtte lan moo ciy àtte bi ña gënoon a wax ni ko yow day yàlla moo def ya nga nekk amirul muminin yow dangay ngay yar defoo dara mbon lii dara amu ci fekk Ali ibn Abi Talib ba ngi toogoon moom Omar mu ne Ali yaa ngi toog waxoo dara bëgg naa laa dégg Ali ne ko yaa amirul muminin ñii de liñ la wax du dëgg yaa ko rey ndax yaa ko tiital mu dee mbon nag loolu laa la mën a wax Umar ak maandu teem nga ak ragal yàllam nga mu taxaw mu ni fii ma taxaw fii du ma fi déplacé benn mètre lu dul ne joxe naa diyaam mbokk yi ñii ñoo ragaloon yàlla bu nu bëggee dund dund bu tedd comme ni ko yàlla bëggee fokk nu dellu ci charia bu nu ko defulee rek violé nañ suñu constitution mboon nag pour ma jéem a indi lu gàttal bu nu bëggee xeex tyrannie mooy tooñeel tooñeel mooy bépp àtte boo xam ne du àtte bi yàlla alam tara ila alladina yazumuuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila ila taaxuut waqad umiru bi ndax gisuloo ñi nga xamante ni dañuy wax ne gëm nañ la yow Muhammad ñu bëgg a àtte boo xam ne du àtte bi yi loolu mooy safaan bi bu ñu ko bëggee dindi ñetti yëf la ñuy def dañuy changer réalisme mooy politique bi jëfandikoo doole ak i ndëgg sarax ñu teg fi politique boo xam ni dafay tegu ci jikko ju rafet loolu moo ñu mën a libéré beneen élément bi mooy code Napoléon bi nuy gouverner ci Sénégal tey du suñu loi mën na baax ci France loi mën na baax ci benn dëkk mais du baax ci beneen dëkk du suñu loi ñun charia moo ñu mu officiel ndax la ngay def France mënoo ko def Sénégal France dañoo di dañoo dañu discriminer musulman yi Sénégal fii tey musulman yi ñoo fi majorité bon nag mënoo leen a discriminer boo leen discriminer régle bii nga xamante ne dafay wax le meilleur bien et le et le moindre mal kenn deetu ko mën a appliquer kenn mësut a gis élection ñu jël ne ki gën a néewle mooy gagné ñetteel ba mbokk yi mooy ñi jàng arab mbokk yi ñooñu ñoo war a gouverner Sénégal ndaxte ñooñu ñoo xam charia bu ñu ko defulee jaay nañu suñu ngor jaay nañu suñu diine te nag dinañu daje ak yàlla